asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki Sénégal euh, maa ngi nii taxaw ci Kër Massar ci terrain bi ñuy wax terrain ni suba ñu war fee amal am ndaje moo xam ne euh, Ousmane Sonko di leader politique bi ñëpp xam ci réew mi ak waa partem Pastef ñoo ko woote fii ci terrain Kër Massar li tax nag ma ñëw taxaw fii mooy euh, mën naa wax ne sax c'est la première fois bu ko yàlla dogalee suba ba ma teew fii mooy première bis bu ma njëkk a teew ci meeting politique ci àdduna kon donc loolu moom day wane ne man du ma ab politicien boo xam ne dinaa woote meeting wala may wuy ji ay meeting waaye nag suba euh, damay bañ euh, ñu jàpp ne ndajem waa Pastef la ba ku mel ne man ak ku mel ne ñoom Dambodj ak ñoom ba Cheikh Omar Diagne ñeneen ñi nga xam ne rek ay Pape ale Niang nga xam ne ñun dañ ñoo xam ne ci penc mi ñuy nekk ay défenseurs yoo xam ne lépp luy dëgg dañ koy jéem a nekk lu dul dëgg buñ sa nekk ak bépp sénégalais rek ba ci sëriñ daara yi ba ci ànd sàmm jikko yi ba ci euh, société civile bi ñoom Pape Abdoulaye Touré ñoom euh, Y'en a ñoom euh, ñoo lank ñoom bu ko sax jéem ak ñëpp ñoo tax may def appel bii mooy suñu nee ah waa Pastef ñooy woote ab meeting kenn ku nekk dem toog sa coin su boobaa li ñuy bañ mooy dañuy taqale parce que bu fekkee dafa am lu ñu war a taxawal Sénégal euh, comme ni ko nit ñi waxee xeex man nag bëgguma di tudd baatub xeex sax ndax loolu neexul di tudd ci xol xeex waaye daal taxaw gi ñu war taxaw suñu réew ba kenn du ko yóbbu ci injustice kenn du ko yóbbu ci safaane droit yi fi nekk suba laa gëm ne bu fekkente ne dafa am cours d'avant suba la cours d'avant mooy ku nekk suba bépp doomu Sénégal muy ànd sàmm jikko yi muy aar daara muy sëriñu daara yi muy ustaas yi muy imaam yi muy euh, journaliste yu yi nekk ci réew mi muy société civile bi ak kum mën a doon koo xam ne yaa ngi ci réew mi rek bul toog sa kër naan mitinu waa Pastef nit ñi ñëpp kenn bokk ci Pastef waaye nag ñoo bokk ak waa Pastef lu ñuy xeex mooy xeex dëgg xeex nooteel xeex jaay doole gi nga xam ne régime mu Macky sàll moom la nekk ci réew mi te di ko puus saa su nekk képp moo tax maa ngi daal woote fii man dama jaral ma ñëw ba ci terrain bi pour xam ko pour suba mën na mën a sol sama dàll ñëw teew fi maa ngi ciy woo nag bépp doomu Sénégal ak képp koo xam ne suma soppe nga wala ngay sama taalibe wala ngay sama xarit wala ngay sama am di jàmm ak koo mën a nekk ci réew mi muy waa Touba waa Kaolack waa Njaasaan waa Ceneba waa jees Casamance fépp ci àdduna bi fu nit mën a jóge rek na ñëw teew fii ñu taxaw ngir wan euh, euh, président Macky Sall ak jaaykati doole yi nekk ci réew mi ñu wan leen Sénégal gépp benn bopp la koo ci laal laal nga ñëpp kon maa ngi woo Sénégal gépp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.